asalaamualeykum wa rahmatullah bala maa wax dara Farba Ngom dama lay gërëm parce que yow nit ku dëggu nga fii lañ tax fii nga taxaw ne diw daa ñam ma ñam vidéo yi dox nga ne bu miimee ma indi preuve kon yaa wax loolu yaa wax loolu kon dama la ciy gërëm ci sa dëggu liñ war a jeex mooy loolu dangaa ñam ma ñam te boo miimee ma joxe preuve kuy xuloo xuloo kuy wax loolu nga war a wax ma wax leen nag pour le cas Karim bi doomu Ablaye Wade jooju nga xam ne tubaar fakal la am na yar am na teggin am na sutura plein d'expérience pour les Sénégal pour le Sénégal et les Sénégalais du Sénégal et de la diaspora kooku huit heures huit heures lay xëy vingt deux heures lay wàcc te kenn bokkul ci politiciens waar kenn du ko waar kenn du ne waxoon lii tey bu ëllëgee mu wax li ci des kon maa ngi koy gërëm parcours politique am ci réalisation yi nga xam ne def na ko ci ministère yi ñu ko seq kenn amul dara loo ko ci waxal zéro faute léegi nag ci kaaw français bi laay wax waaw français naka lay dem di wuy boo xam ne ay sénégalais ñoo ko woo Karim def na ko dama ne kuñ ne français nga naka ngay dem di ñu ñu àtte la di la exiler au ko que ñu yóbbu la France ñu yóbbu la Qatar xanaa Qatar yi la war a doon bokk Karim def na ko

loolu nag buñ ko wàccee ci doomam ji Karim Wade laa ni day bokk Karim day bokk billaahi day bokk Karim day bokk ku dul kenn mënu ci tus waaw mas ngaa gis 2019 nga déposé ñu ne la amoo fii laa xuloog ak ne gi ñaan ñaay l'ancien ministre de l'intérieur waaw Karim ñu ne français la mu dem doxaa mu dem euh, fee bindu Turquie ne ko yaa ngi wotee point E ñu ne deete waay nationalité waaye yow ñii ñooy yabaate xam nga li xew li sénégalais yaakaar moo amul yàlla a la cour des magouilleurs la da cour de malfaiteurs y a la cour des trompeurs xam nga liy dëgg nan nu may jàmm cour taskatu yaakaar Sénégal seen yaakaar tas na ci Karim Wade yow bu ñu demee ba ay candidats yoo xam ne sont des candidats taxaw nañ ku ne dégg na fi Boun Abdallah Dionne premier ministre ne Karim daa war a bokk ku ne dégg na fi Alioune mu ne Karim daa war a bokk ku ne l'ancien ministre de l'intérieur mu ne Karim daa war a bokk waaw léegi lan la soxor iñaan iñatu bañu ñu ñëpp bokk de waaye nañ ko teg ci yoon euh, kuuru recalé recalé les parrainages recalé des candidats recalé recalé recalé bu ñu leen di contribuer bu ñu leen di euh, qualifier loolu lañ leen di qualifier waa dama ne xanaa sénégalais yi ñii nag sax monsieur le président xanaa ñi amuñu yërmande depuis 2012 Abdoulaye Wade ci réew bi benn président defu liggéey na yéene na ñëpp jàmm di jéggale di bale di jaal di jaale mu ñël ñëpp ñu jël doomam ji rek sam ko ne yemb rek sam ko rek te kenn def ko ki nga xam ne boppam ne taabalu paase lu jiit njaagate mooy njaag te li mu war a wax waxu ko dañuy romb wallax njaag naan sa wallax njaag bàyyi seen ñàng mu rëy ci seen kër waaye yow nit accusé la fii ne la yow yaa def acca nga ne cenn bëgg noo rek réew mi golo golo la kenn mënu fee nax kenn ku yaakaar ne nëbbu nga sa bopp dugg nga yaakaar ne mucc nga booba def nga sab génn gi ci beneen fang nit ñi di ko seetaan dañoo sonn dañoo tay ñun waalo waalo yi dañoo sonn ñun waa PDS dañoo sonn te maa ngi leen di gërëm mënoon ngeen a dem demu leen mënoon ngeen a jaaxle jaaxle bu leen ngeen toog ak seen ngor di xaar di xaar waaye ñi ñoo ñàkk sa ñi mën nañoo rey nit sax ñi mën nañoo rey nit te deew di yàq fan ngay amee jàmm laa wax 2019 ñu ne am ñu d'accord 2024 ñu bindu war a boo watee ci point E ñu walbatiku daal ne Karim du bokk Karim day bokk par force day bokk day bokk mbaa élection du am nous demandons le report des élections présidentielles nous voulons aller dans des élections transparentes xam nga ne ëngëm bii ëngëm loo ba def bii jëf du rëy su leen neexee bu subaa ñu ne Woré Sarr moo gagné ku koy faj te fekk duma candidat ku am possibilité dàq Karim Wade bu la ku koy faj nan nu may jàmm xoolal cere ji safur laalu nga ne man de tayu ba ko waaye yow ñu yóbbu la commission d'enquête parlementaire ñooña waxagu nga tëb di porte plainte koy porte plainte kii a peur de kii que ragaluñu fi kenn <coughs> suñu position tey la xoolal billaay jàmm ana ñuy wax preuve am preuve preuve de le moment n'est pas opportun Quand le moment sera opportun vous saurez que Merci nous les enfants nous sommes les dauphins et les dauphines président Abdoulaye na yàlla guddal faram te